asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa diaspora rawatina yéen ñi nga xam ne ne yéenay safoo di bàyyi xel waa Elvision Média tey nag maa ngi fii nii nga xam ne ne mooy Touba bëgg fee tourné sama émission bi ñu naan li ma bëgg a doon nekk fii nag ci wetu jumaa ji Daaru Xuddoos ah léegi damay ànd samay cameraman daal di jaar nii dégg kenn sama micro laajte lan la bëgg a doon Aïcha kaale ñu dem. waaw tamit damay daal di dox de ma ah, ànd sama cameraman bi nga xam ne ne mooy saal ak ki nga xam ne ne mooy Fadel tamit dëgg neexul kaay leen topp leen ma maa ngi fii nga xam ne ne mooy Touba waaw gis naa fii ay gars de ma laajal ñoom man lañ bëgg a doon asalaamaaleykum. na ngeen def. mbaa am jàmm bu baax. ñu ngi suñu émission li ma bëgg a doon ma ñëwoon fii nga xam ne ne mooy Touba bëgg leen daal dalal sama. waaw na ngeen def kon dalal nañ leen jàmm bismillah. Ah. léegi fan leen mën a toog ma daal di lay poser quelques rek. waaw léegi kon xam naa ñu jàll si di rek man commencé émission bi. waaw tamit. Sari dang may dari top mo dal daal dugg ci bir xam nga tegal ko émission bi naka lay demee señ bi yéen ngi tok eh, eh bismillah mais caméraman waa ba tey maa ngi fi ni nga xam ne moy Touba daal di euh, bëgg dégg kenn sama micro laaj ko mom nan la bëgg doon mu dalal ni ci place am bi yañi bi ni nii mu koy daal di laaj moom sa bi da nga def. ça va soxna si. tour bi naka la. man Cheikh Mbacke Sey laa Cheikh Baye Fall quoi lañu gëna xamé quoi. Ah, Cheikh Baye Fall. Eh, dama la bëggoon a laaj yow lan nga bëgg a doon. man nag li ma bëgg a doon ci coiffeur la laa bëgg a doon. coiffeur. yow lan moo la poussé ci nga bëgg a doon coiffeur. coiffeur nag dama doon xale di ko fowantoo après bi ma demee ba gën a mag tam ma gis ko mu neex ma quoi moo tax ma bëgg ko doon ma nekk ci boobu ba léegi quoi. yow eh, da nga ne métier bi ba nga doonee xale nga ci nekkoon. Euh, ba nga doonee xale nan nga doon dundee métier bi parce que daa mel ni métti woon na torop. waaw parce que xam nga àdduna moom lépp looy commencé day jafe quoi. parce que da ngay commencé neex si peñe ak lañ seet di ci nekk ñi naan dina dem ñi naan du dem mais bëgg a doon bi ngay bëgg a doon moo tax ngay am gëm-gëmu nekk ci di am di am benn machine di dem bay am ñaar di di ci nekk di ci nekk ñeneen ñi duñ la duñ ñu nawloo métier bi mais après yow mi ci nekk quoi bëgg doon lii mooy tax. nga yóbbu ko feneen moo tax ñu nekk ci boobu ba léegi comme demee nii. mais ñàkkul ne ne am na koo xam ne ne euh, moo la doon ci poussé pour nga bañ a découragé parce que kon ni nga ko waxee rek nit ñi moom duñ gis duñ bàyyi kenn mu dem. waaw loolu dina ma neex ndaxte tam bi ñu jógee ci beneen kii. bi ñu ñëwee quoi dañu gis beneen gain mu di ci def lu rafet loo xamante ni biñ ko gisee mën naa ne daal gën nañu neex quoi gën nañu motiver ñu gën a bëgg affaire bi moo tax mu demee ni mu demee. Euh, yow fi nga juddoo fi nga yaroo màggee fi wala. non man nag Louga laa jóge fa laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee après fa laa jógee ñëw fii di topp métier bi lépp di topp métier bi quoi. parce que Louga mhm, moo tax ci lañ topp branche bi ba léegi nii ko saa bu ñu xëyee rek dañ ci daf ñuy gën di neex. Hmm. lagi eh, dama yow instant bi ne lan ngay sentir que bi nga amee man ndax man sa place bi ma ko gisee neex na ma trop man bëgg na don sa coiffeur hmm. legi yow lan nga sentir instant bi nii si sa si sa job bi non li ñu sant ci job bi mooy fi mu nekk nii nañ ci yóbbu nañ ko ba ci kanam ba tax ñu bëri legi dañuy bëgg a coiffeur parce que léegi moo tax dem ba après métier bi yokk nañ ko ci beneen niveau ba dañuy mujjee di former ay gars di def salon de coiffeur def association pour gën a yokk métier bi ci kanam kanam def di mën teg ay procès pour ñu gën a xam ne tam lii métier la parce que métier bi tam métier noble la quoi nit bu ne li nga nekk li nga nekk yow yaa koy valoriser pour mu am valeur quoi. yow yaa ngi sa soxna wala. si waaw man marié naa temps yi passé quoi. yàggul. non yàggul dara quoi parce que rek gars yi nii da mooy loolu quoi foo nga nekk ci parce que di léewatoo léewatoo boo gis bi la doy rek nga téye ko quoi. dañuy gis ne ne seen classe gu mel ni yéen euh, jamono ji ni toll ñoom xoolatuñ jabar lépp luñ am rek dañuy daal di dem euh, kii bokk ko ni nga xam ne ne mooy nan lañ ko waxee gel yi Tuuba laa nekk <laughs> nu muy gën a rafetee. waaw mais nag xam nga rek ñëpp bokkuñu nuñ leen yare quoi parce que yar dafa am solo ci doomu aadama. même suñ la yéré yar bu ba fo mën di dem bo fa nekkee même yow kessé sax so gisul ñooñu sax après bobu nga wara gëna appliquer niñ la yéré quoi mais pas do gis comme tay ñi ak ñi rek nga ne def ni quoi té liggéey mo ñu ñor parce que dañuy bëgg di fondé famille def leneen ak leneen lool mo tax mhm. euh, légui yow tay paré nga won pour tay bo jék jék won rek wara tukki ñu né la pour nga euh, continuer fofu job bi di nga dem non soxna si nag yaa may laaj li mu gën a neex nii parce que instant yii damay tëdd sax diggante dugg kaaw ba nii. ah kon la bokk daal. loolu moo tax sànq maa ngi la koy wax ci biir wax ne moo tax dañu doon bëgg a doon coiffeur international ko bon di am ay projet ci fu ne fii ak fee am ay shop yoo xamante ni ci affaire coiffeur lay jaay. Euh, sëñ bi euh, yow lan moo tax euh, nga ne da nga jóge Louga ñëw fii nii nga xam ne ne mooy Touba di fi def coiffeur te resté woo Louga foofu noonu. waaw mais xam nga rek yaakaar quoi ak góor moo dëkkul fenn quoi loolu moo tax mu jóge foofu am fi yaakaar ñëw fii pour liggéey si mais ci coiffeur. yéen ñaata ngeen wate. ñun 1000 francs lañuy ñuy wate. francs. mag xale yëpp. non mag. 1000 francs xalé 500. xalé 500 ouais mais lolu est ce que di ngén ci am lo xamné né bénéfice bo xamné né di ngén ci mëna fac sen soxla yépp ak parents yi soxna si nga xamné né mom nga yor. waaw mais xam nga nit ñi ñongi ñun ñongi doon wootee ay 300. doon ci génn di kii mais nak jamono bi toll na foo xam après tam nu mu démé da ngay and ak mom parce que da ngay yamalé sey bëgg-bëgg moy tax nga mëna def li nga bëgg def. parce que ñu ngi doon wootee 300 di di faj li ñu bëgg faj après dem nañ ba yegg ci 1000 francs dañu bëgg dem ba néew bi gëna kawé quoi. ta téw ñu yéen a ngi ciy gis seen bop ñi. bien sûr ñooñu 1000 francs 500. Euh, euh, ñoo ci gis suñu bop bu baax. légui yow mën nga ma raconter euh, ni nga ni nga débuté ba yegg ci fi ni mu débuté way metti won na trop hein, parce que da nga doon xey nekk ci affaire bi commencer des fois da ngay toog toog ba découragé ñu naan waaw ki waa waa moom xanaa moom du découragé moom moom day toog di toog rek mais après gëm-gëm boobu bëgg a doon coiffeur boobu noonu bëgg ci doon dem ba doon international di ko rêver rek di dem loolu moo tax ñu nekk ci ba léegi ne euh, sëñ bi yow damaa gis ne ne coiffeur bi yow nga ne lan motax euh, ñu bari suma len euh, dekk sama micro da ngay dégg ñi naan président la bëgg doon ñi naan rappeur ñi naan waykat ñi naan euh, transporteur façon liggéey bu nekk ngay dégg mais yow nga ne coiffeur nga bëgg nekk lan mo waral loolu ah man coiffeur la bëgg nekk parce que dama xam naa ne ñëpp mënuñu doon président quoi loolu moo tax man ma opté doon coiffeur déggoo leen ko de akasadik nee na da leen may yoon bi noonu <laughs> Euh, sëñ bi yow sa soxna naka lay gisee euh, liggéey bi moom amul euh, kii nii nu mu nan laa ko mën a waxee sax loo xam ne ne day day day fiir wala yooyu noonu du genre. non moom dafay xam na lii métier bi la rek après soo ci nekkee yaa ngi ci mais soo kiiwee tam da nga koy jox axam ba mu jeex parce que foo nga dem liggéey xamu jigéen ñi mënoo leen yor te demoo liggéey boo toogee fii lañ lay bàyyi foo foo nga dem liggéey ko moom tam dina comprendre métier bi. yow am ku ne ko mais après tam yow xam ki nga door parce que muy ci coiffure bi laa bëgg a door. daa mel ni ne yow yamoo ci euh, wat bi euh, wat bi kese ak ci dàll yi kese daa mel ni daa am yeneen business yoo xam ne ne yaa ngi ci. waa xam nga rek coiffure moom biñ ci boole business bi après ñoo ngi ci yëpp mais nag ci yi nga xamante ni yu nice la quoi ci la ñu nekk parce que tam. dañ ci am ay idole après ñun tamit ay idol lañ ci ñeneen ñi nga xam ne dañu war a nekk ci ginnaaw di ñëw parce bu ñu tam ñu yam ci métier bi rek dañu bëgg nit ñi nawlo ñu métier bi tam ñu xamné métier bu noble la comme li la ko doon wax lima bëgg doon mo moy mo tax mu démé ni quoi na damay lay bay nga tagato ba benen yoon inshallah allah ñu gën la dara ci sima lima sama émission lima bëgg doon wa lima bëgg doon mom doon na ko pare mo tax ma bëgg ko gëna doon mhm. ma ngi leen di sant di leen gërëm ci émission bi ngeen def rafet na trop quoi yalla na gëna jëm ci kanam ba comme li ngeen bëgg a doon ak li ñu bëgg a doon lépp ànd bokk doon ko di sant mbokk coiffeur yëpp ñu gën a gëm seen bopp xam ne métier bi métier noble la ci kaw ci kanam. damay daal di def tàggatoo ba beneen yoon ci li ma bëgg a doon sama émission waa di euh, remercier ñi nga xam ne ne tamit ñooy sama cameraman kii di Balla ak euh, Saali mi nga xam ne sama lakkal la du ma fàtte ki nga xam ne ne mooy sama monteur muy euh, Delpha ñu naan ko Fadel tamit dëgg neexul damay daal di def ba beneen yoon Aliou ciao ciao fii laa nekkoon ci Touba Fadel daanu fi daanu bu